asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool dañu koy door ak Sud Quotidien bi waxtaanee soppi yi nga xam ne moom la ñu indi ci loi bi nga xam ne moo jëm ci wàllu état de siège ak état d'urgence ak Alioune bi nga xam ne mi ngi ciy artu bu baax a baax boobule projet de loi nga xam ne ñu ngi ko jëmmaloon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril ci atum 1969 nag te nga xam ne te mu nekk jamono ji ci assemblée nationale ginnaaw bi ko njiitu réew mi siiwalee ci conseil des ministre nag jaaxal na bëri bëri bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication wala boog jaaxal na ki nga xam ne moo taxawal Africa Jom Center moom daal nee na lii dafa ñëw indi jiixi jaaxa ci ñu bari ñoo xam ne dañoo bokk ci société civile wala rek ci askan wi moom Alioune Tine ni njiitu réew mi moom am na ay sañ-sañ yoo xam ne dafa sax fara ëpp moo tax it mi ngi dénk suñu naataango yi fare ci avenue Bourguiba gisul lan moo war a tax ba Macky sàll di jaaxle ba mu jaral démocratie teg ci lii ñuy duppee état de droit ñu des ba tey ci coppite boobu projet de loi ak waa Dakar Times ñoom nag li leen soxal mooy laaj ndax du njiitu réew mi nag suñuy sañ-sañ la ñu bëgg a xañ suñu naataangoo yi di ñu xamal ne ni ñuy xamlee ne boobule projet de loi dañ koy soppi ba tey laaj yi na lool ci bopp askan wi li leen jaaxal nag mooy lan moo waral rek ci dëgg-dëgg njiitu réew mi bëgg amal loolu lee ndax gisuñ ci lenn lu ñuul ñu des ba politique ak ndaje bi Khalifa Ababacar Sall na Les Échos bi ñu koy yéegee ni Khalifa Sall li mu gën a bañ ci àdduna mooy koo xam ne daal day jóge ci kujje gi fekk si nguur gi ki fi doon maire bu ndakaaru nag nee na ci réewu démocratie boo xam ne bu dëggu la daal dafa war a am majorité boo xam ne mooy nekk ci bopp réew mi di doxal ak benn kujje goo xam ne mooy nekk ci wedd wa di def liggéeyam ñu wax ba tey ci ñenn ñi nga xam ne dañuy jóge ci kujje gi ñëw ci majorité bi ku ci mel ne Idrissa seek ak waa tribune di ñu xamal ne Thierno Alassane Sall dal na bu baax a baax Idrissa Seck bi jiite conseil économique économique sociale et environnementale taas xarab bu baax a baax Idrissa Seck nee na bu doon ci réew mi le dañ fi am ñaari sa Seck moom musiba lay doon sa Seck daal jarul dara ci gëtu Ceerno Alassane Sall ñu waxtaane leneen loo xam ne it soxal na président Macky Sall mu jëm ci yenn doxalin yu ñaaw yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci presse bi nga xam ne dañu koy jaarale ci xarale yu yees yi ndax loolu la daal mën na yëngalam réew bu ñu sukkandikoo ci le soleil ci conseil des ministres président Macky Sall démb mi ngi soññ ministre bi ñuy dénk wàllu caada ak communication mu ànd ak seen CNRA fexe daal ba gën a yee ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu wi ci ñu gën a xoolaat seen liggéey ngir suñu caada ñu mën kaa sàmm teg ci yi daal sàmmonteeg bu baax a baax charte yi nga xam ne moo lal liggéeyu tas xibaar te ñu fësal ko ci biir code de la presse ci mbir moomu la des ak waa critique ni Macky Sall li ko ñor fi mu ne mooy sit yi nga xam ne dañuy def naka sa dul noonu daal mu araftu leen ci teel ba setal boobu le secteur ñu jógee ci secteur presse en ligne jàll ci beneen mu jëm ci wàllu caada ak lépp lu jëm ci wàllu artistes yi artistes yooyu nga xam ne nag démb donte sax nguur gi da leen tere woon ñu amal seen doogaanu ñaxtu mujj nañ ko am am file ay boîte de nuit ñoom ñëpp daal fexe nañu bët amal la ñu bëggoon Fada Freddy dina ñoom daal liggéey rek a leen soxal ndax duñu yolwaan benn yoon laas moom di ñu ne donte sax artistes yu bëree fa teewoon démb waaye saar yi teewuñu fa woon ku ci mel ni Youssou Ndour Wally Seck Pape Diouf ak Viviane ñu des ak Youssou Ndour boobu ci biir l'enquête muy xam xamle ne président bi fileeg ñaari fan dana àddu ci mbir mi te ñàkkul daal li artistes yi bëgg dina leen ca fekk ci beneen wàll wa ki jiite au conseil dialogue social di Innocence Ntap Ndiaye nee na tey jii daal ci alxamis bi dana dajeek yooyu le artiste lii quotidien moom fi mu toll nii daal waajal bi ñuy waajal fête Noël tax daal ba ñu bëri ci askan yu mel ne ñu teg ci suuf wàllu mbas mi ndax daal marché yi xumb na lool Sud Quotidien di ñu fàttali nag ne mbas mi mi ngi samp bu baax a baax ndax démb ci àllarba bi juróom benni doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan juróom-ñeent fukk malade yu yees yu toftalu juróom-ñett am nañ doomu jàngoro bi fanweer yi nekk ci Sowétas ci jamono ji li daanub avion boobu nga xam ne dafa bokkoon ci Sénégal Air di ñu xamal ne directeur général bu ANACIM ak yeneen ñeenti waay ñoom daal la ñu delloo ci correctionnel juróom-ñaari doomi aadama ñoo ci ñàkkoon seen bakkan te li ko waral mooy sàggan doyen di juge di fàttali démb ne directeur général bu ANACIM di Maguèye Maram Ndaw jëluloon matukaay yewar ginnaaw gi nga xam ne daal xam la xamle nañu ko am na ay jafe-jafe yu am ci boobule aéronef bu Sénégal am procès boobu nag dañ ko dàqandi Dame Amar ak ñi nga xam ne ñoom lañ ciy tuumaal nag dañuy des ci kaso bi juge bi moo jël boobule dogal ñu des ba tey ci tribunal ak ñaari professeurs yi nga xam ne nag dañu teg seen ndodd ne dañoo siif benn élève boo xam ne fukki at ak juróom-ñaar la am te muy jàngee ci groupe scolaire njaare bu wakaam ñoo ñooñu leen nag ci kaso bi ñu ne woon fa lañ leen bàyyi ñu jeexale kooku wàllu tàggat yaram doore kook ak wa sàdd di ndax Crépin ci attaque la mënee wala ci milieu bi ak lu a ci clubam boobule nekk ca Belgique ndax jot naa dugal juróom-ñeenti sat waxtaan nañu it wàllu coupe CAF ak San Pedro bi nga xam ne moo daan waa jaraaf fële ca Thiès jaraaf daal ñàkk na ab bataay ñu jeexale koog waa sunu lomb bi ñuy waxtaanee ubbiteeg saison atum 2020 jàpp 2021 ak ndaje bi war a am ci diggante Matar Ba ak Bira Sène ñu ngi ko fas yéene amal samedi bu 11h jotee ak jàmm ñu des ak waa SAD bi ñuy fàttali li fi xewoon ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci atum 2002 fukki at ak juróom-ñett ngi nii ni B52 bombardier daanoon Tyson ginnaaw juróom-ñetti seconde combat lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay ñu xëyandool Yendoog jàmm. Bonjour. Modification envisagée de la loi relative à l'état de siège et l'état d'urgence, Alioune Tine sonne l'alerte. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le projet de loi devant modifier celle du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et l'état de siège qui serait dans le circuit de l'Assemblée nationale après son adoption en Conseil des ministres inquiète plus d'un, indique le quotidien du groupe Sud Communication, ou du moins le fondateur d'Africa Jom Center, qui relève que la dite information trouble la quiétude au niveau de la société civile et au sein de l'opinion. Alioune Tine, puisque c'est de lui qu'il s'agit, trouve que le chef de l'État dispose déjà d'un pouvoir hypertrophié sans limite qui constitue déjà un dysfonctionnement de l'état de droit. Pour l'interlocuteur du confrère de l'avenue Bourguiba, Macky Sall n'a pas à s'inquiéter au point de changer une loi qui va au coup sûr défigurer le statut de notre démocratie et de notre état de droit. Restons avec ce projet de loi modificative avec Dakar Times qui se demande si Macky Sall veut confisquer nos libertés. Le confrère signale que depuis l'annonce de ce projet, des questions jaillissent sur les réelles motivations du président de la République qui cherche à une loi qui ne souffre sérieusement d'aucune imprécision. Restons dans la sphère politique avec la rencontre de Khalifa Ababacar Sall avec le front Multilutte Doyna. Tenue hier, les échos renseignent que Khalifa Sall maudit totalement l'entrisme. Selon l'ex-édile de Dakar, dans une démocratie qui se respecte, il y a toujours une majorité qui gouverne et une opposition qui s'opposent. Il ajoute que la politique n'est pas de la politique politicienne, c'est un combat permanent pour la promotion des populations et leur émancipation. Parlons toujours de ralliement de certains leaders de l'opposition tels que Idrissa Seck avec Tribune qui révèle que TAS tire à boulet rouge sur le président du Conseil économique, social et environnemental, Thierno Alassane Sall, bousille Idi, selon le confrère. Il soutient que s'il y avait deux personnes comme lui dans ce pays, ce serait la catastrophe. Idriss n'a donc aucune crédibilité aux yeux de Thierno. Alassane Sall. Risque d'atteinte à la cohésion nationale, à l'image de l'État et à l'ordre public, Macky Sall veut une régulation des sites d'information, signale Le Soleil. En conseil des ministres tenu hier mercredi, Macky Sall a en conséquence demandé au ministre de la Culture et de la Communication, en relation avec le CNRA, de renforcer la sensibilisation des acteurs de la presse en ligne, en vue de préserver d'une part nos valeurs culturelles et d'autre part de veiller au traitement professionnel réelle de l'information conformément aux dispositions du Code de la presse. Face aux dérives de la presse en ligne, Macky Sall censure les sites pervers, rapporte critique et a instruit les services de l'État habilités à nettoyer le secteur. Quittons le secteur de la presse en ligne pour celui artistique et culturel. Les artistes donnent le ton malgré l'interdiction de leur sit-in, renseigne l'enquête. Rappeurs, danseurs, managers d'artistes et propriétaires de à reculer. Fada Freddy soutient, je cite, Nous voulons travailler dans la dignité, nous ne mendions pas. L'AS parle de fausses notes dans la symphonie lors de ce sit des artistes pour la réouverture des salles de spectacle. En effet, malgré une très grande mobilisation, les stars de la musique telles que Youssou Ndour, Wally Seck, Pape Diouf et Viviane ont manqué à l'appel. Dans Enquête, Youssou Ndour fait savoir que le président va donner une suite favorable dans les 48 heures à venir. Et la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Innocence Tam Ndiaye, promet de rencontrer les acteurs. Aujourd'hui, Le Quotidien informe que l'esprit de Noël balaie la Covid-19. c'est l'effervescence et les préparatifs vont bon train. Sud Quotidien rafraîchit notre mémoire et nous rappelle le bilan de la Covid-19 du mercredi 23 décembre. 6 décès, 98 nouvelles contaminations, dont 5 importées et 30 cas graves ont été recensés en cette veille de fête, un rebond de la pandémie, plusieurs sons de cloche à Sen. Sud Quotidien, Libération revient sur le crash d'un aéronef de Sénégalair. Le directeur général de l'ANASIM et quatre mises en cause renvoyées en correctionnel. Sept morts à cause d'une série de négligences. Malgré les incidents signalés avant le crash, Maguey Maramdaou, directeur général de l'ANASIM, n'avait pas pris les mesures nécessaires telles qu'il résulte de ses le doyen amende pour homicide involontaire. Restons dans les couloirs de la justice avec le procès de Dame Amar et compagnie. Il reste en prison suite à la mort par overdose de Iba Thiam. Ainsi, on a décidé le juge hier. Deux profs accusés de viol par une élève de 17 ans au groupe scolaire Ndiaré de Wakam, c'est Vox Populi qui nous relate l'affaire. Déférés avant-hier, ils ont fait l'objet d'un double retour de parquet. En sport, Stade le quotidien du sport se demande ce matin qu'au milieu. Le Sénégalais explose en club un temps, excentré, déjà 9 buts, son meilleur total en carrière. Ce n'est pas un milieu défensif ou relayeur, c'est tout simplement un attaquant. Sad nous parle également de la Coupe CAF avec San Pedro qui s'impose à Thiès, Jaraaf perd une bataille. Ouverture de la saison 2020-2021, c'est Sunu Lamb qui nous en parle avec Matarba qui va rencontrer Birasen. La rencontre entre le ministre des Sports et le président du CNG va se tenir samedi à 11h. Sunu Lamb rafraîchit également notre mémoire. Il y a 18 ans, le B52 Tyson en 8 secondes. C'était le 25 décembre 2002. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.